auzu billahi min bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad ibni abdillah wa alihi wa sahbi wa xayra xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima mbokk yi maa ngi leen ma def vidéo bu gàtt rek jëm ay benn benn feebar ak li faj ci lu gaaw waxuma mooy ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe dënn maanaam dënn buy tàng di riir wala dënn buy metti wala ñu am jafe-jafe baat baat buy xerandiku wala baat buy yuuxu wala baat buy dagg-daggee wala koo xam ne ay waxam daal leerut nga xam ne buy wax wax ji du leer muy xaddantiku wala ko xam ne baatam day dee moo xam ñiy jàng xasida la moo xam ñiy def discours la ay conférence moo xam ñiy def laneen la maanaam ndax baat bu dee wala koo xam daa am taweti dënn jafe-jafe pomo wala muy fat wala dënn buy riir yooyu yépp yii ma wax nii nag ku ko bëgg a faj mu wér nga teqali ko ak moom ba ci asma xeeti tawati asma yooyu yépp ba ci goowaatar dara génn ci lépp loo xam day tàmbalee fii ci gémmiñ wàcc ci dënn bi ba agsi fii ci la bokk lépp lu tàmbalee ci gémmiñ jaar ci bëñ jaar ci siimi jaar ci bëñ jaar ci làmmiñ jaar ci boli wàcc ci dënn bi ba ci poumon yi li may wax lépp yow la concerné day faj dangay wut liban dakar liban dakkar moom ngay wut nga dëbb ko moom nag daa xaw a mel ni simon maanaam euh, dafa xaw a mel ni singom day kole boo ko dëbbee boo xëyee suba nga tàngal kaasu ndox jël genn ku du sotti ci yëngal bu seddee nga naan nga def ko suba def ko ngoon loolu bépp xeetu tawatu dënn bépp xeetu tawatu sëqët ñetti xeeti sëqët yépp mën na koo faj sëqët boo xam ne poumon yi dafa wow ba kotomu mooy sëqët yu metti yooyu nga xam ne dem ba rey nit sëqët su taawir wa ilaa boog mu doon ko xam ne poumon yi dafa solo ndox xëtër yi mooy yooyu nga xam ne boo demee hôpital dañ ci samp ay silendar ngir génne ko mu bokk ci yi gën a metti moom tamit wala koo xam ne poumon yi dafa am ay góom mooy li tudde arre awiya mooy xëtër yi yi bés air bi ak a delloo libaa zakkar ngay wut nga dëbb ko moom na soo baxalee ndox boo ci sottee kudd gi du gaaw a seey danga koy yëngal ndax day xaw a mel lu gome waaye bu seddee rek mën ngaa naan ndox mi def ko suba ak ngoon kaas suba kaas ngoon beneen bi ci des xorom polle ngay wut boo xëyee ngi jël benn doomu xorom polle nga sex ko sàqami ko ba mokk nga wanaasu ko mu jàll nga toog ab diir door a naan ndox wala nga door a lekk booy lekk noonu nga ko defee ci suba gi su bëccëgee noonu nga koy def su ngoonee noonu nga koy def bépp baat buy xerandiku walla baat bu dee wala baat buy tag wala koo xam dafa bari ay lor fu toll gi mi ngaa ngi fees ak lor wala muy tëdd guddi muy yuut wala xeet yooyu dara génn yii ma wax nii nag day faj nekkul loo xam ne day dànk ba déedéet mooy li koy faj koo xam ne boo tëddee guddi da ngay yuut wala ngay sëqat lu bari wala nga amee asma wala nga amee guwaatar wala saar mel noonu xorampol boobu dara tanewu ko ci mu ànd ak liban zaka mën nañu ànd ba ca tege mooy lu mel ni laaj nga xëy suba nga jël benn doomu laaj nga lakk ko laaxas ko ci sagar lakk ko ci dóom wala nga lak ko ci xal wala dom noko meuna lakke rek ta bañ ko lakk ci gas boko lakke bam ñor nga kami, bam sedd rek nga xex saxami saxami ko lu yàgg dor ko wanaasu koku bepp febar bu mu fek tambale ci gemiñ gi ba ci dënn bi febar bu mu fek da koy dégasser day ray bepp virus bepp virus virus moy bepp ndundët bu indi jangoro te fay dolel bepp virus bepp ndundët buy tax bu mën a xeex yeneen virus yi nga xam ne day joxe ay jàngoro kon loolu njàngale mu gàtt la moo xam ne ku ko jot mën nga ko jotali keneen day faj xooram pole boobu laaj boobu liban zakar boobu ku baatam naqari ku ay waxam desee leer ku amee asma kuy sëqat ñetti xeeti sëqat yépp nag laa wax ku amee problème poumon wala buy noyyi muy tag di fat wala jafe-jafe guwaatar yi ma wax yépp ba ci jafe-jafe bëñ loolu ku ko saxal même bëñ bi mett sax dalay sori ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di yeesal sunu taalibe ak sunu jébbalu ak sunu cofeel ci mawlana abdullahi wa xadimi rasulihi sëriñ tuba xaadim rasul wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu